jaaree ko ci sunu xalifa Seydina Aliyu ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te yokk wér gi borom mottali ay mébétam ci liggéey bi sàmm ko zahiran wa baatinan bi jaay Cheikh Moussa di nuyu rakam se Adama borom dëkk ñu ngi koy ñu ngi koy ziyaara bu baax aka noonu yu kilifa ak bi ñu ngi lay nuyu bu baax sëriñ bi di ziyaara ñu lay ziyaara bu baax a baax di sëñ mamo Cissé ñu koy nuyu ak mamom yépp ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara di nuyu njabootu Cheikh al Amin ma'ruf bi Cheikh Modou Fana ñu ngi leen di nuyu di leen jox nuyu njaboot gi yépp nga xamné ne ñoo amoon xalaatu waxtaane jëm jojju nga xamné liggéey liggéeykat lawon bu mag ci képaru Cheikh Moussa Cissé ñu ngi leen di nuyu ci njiital Moustapha Cissé soxna Roqiya soxna nee na ñu ngi leen di nuyu ak mboolem njaboot gi ngeen àndal ñu ngi leen di nuyu Cheikh Baba mu daw di nuyu jagleel nuyu suñu conférencier jaratul présenté ci xadra bi dina ci baat bi ñu wax tey ndax mu ñu seetloo foog naa ne ñeenti at a ngi nii wala mooy taxawu jataay bi ci wuuteeg jëwrinam sëy liggéeyam waaw rek am na jataay bu ñu teewe woon ca ndakaaru mu ko doon amal ci daaraay alquran ji muy dafa jataay bu rafet lol am solo lol. di liggey bu am réussir lol alay jibi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay dokkal way ñu ngi lay ñaanal yalla mu taxawul la zahiran wa batinan ginnaw nuyo bi yon ci waxtaan wu ñu nam amal ci bis bi ñu tam amal ci ñettelu fanu tabaski so defé balañ ji ñu alay jibi sey nga jégé si suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaa wax ne su ko xaari doon jar danaa ko am abonné wu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na ko station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour